tay nak dama fi ñew and ak euh, bolé sar wad mom mi nga xamni moy président comité de crédit de la caisse de Kébémer ak euh, Diouf gérant de la caisse donc ñu ñew fi comme niñ ko doon défé at bu nek su gamu gi di waja ñew ñew indi ay teranga pour dugal suñu loxo ci gamu gi niñ ko defé Njaasaan defé ko tiwawon ak kaolak non lañ ko defé fi ci nguran indi nañ fi lu mel na ay ciep ay dewlin ay basang ay satala ak pagu ndox yi ngeen di gis mom lañ doon motali ci tay ñew pour indil ko khalif bi ak mbolem fami bi donc parce que crédit mutuel fu askan bi xewlee da ci taxaw pour japp ci xew-xew bi ndax li liñu yor momelu askan bi la askan bi ñom ñoo tax ñuy liggéey donc fu askan bi xewlé dañ leen fay fekk japp ci bis bi na nak muy bis bo xamni bisu ngeen di mindeef la ku nekk lo ci def rek danaka sa bop nga ko defal donc ñuy am bekté lool di tew fi encore une fois pour indi xétu teranga yi te fasiyene at bu nekk tamit ñu gën ko gërëm Euh, yow ak ñi nga àndal euh, indi teraanga fii ci nguraan euh, jëbal ko xalifa Cheikh Dey calaw Seck Cheikh Makhtar Seck lii nag du ne du guleet ndax def ngeen ko ay at su xewlee ngeen ñëw indi seen teraanga waaye nag tur dafa wuyu boroom ndax crédit mutuel banque populaire la banque populaire boobu nag yaakaar naa ni su askan wi xewlee parce que fii ñëpp fii daje su askan wi xewlee ñëpp di fi daje ngeen def geste bu mel nii dañu leen ci gërëm di leen sant euh, di ñaan ci yàlla euh, seen organisation bi yàlla na yàgg te sax euh, ndax organisation bu ma xam la man ndax waxoon naa ko daaw organisation bi ki ko fi ki ko fi sos sama xarit la ñu Daniel Poseka moom moo ko sos ñu daje cees ñu sos ko fa mu law ba si fii donc dañuy sant yàlla ci loolu bu baax a baax ñi nga àndal nag rawatina suñu frère euh, boole euh, Wàdd am engagement ak euh, yëg gi mu yëg sëriñ bi ak ni mu jàppee Nguraan nungu ku ci gërëm di ko sant di la ko yëgal yow mi nga xamni ne yaay kilifaam and ak euh, monsieur Diouf aussi ñu ngi leen di gërëm di leen sant sëriñ bi kontaan na ci bu baax mu ngi leen di ñaanal yàlla yàll na yàlla dogal nu fekke ko ay ati ati at teranga bi ngeen di ko andi euh, ba mënatu leen euh, am ñu leen wuutu ca li ngeen doon def parce que li ngeen di def lépp lu am solo la ndax ki ngeen koy defal jar na ko parce que sëriñ bi damay wax ni ñaari bis la am képp amul ñett amul ñeent ñaari bis yi mooy li ko maamam Cheikh day Calaw bàyyil mu doon ko ci moom muy gàmm di juddi yont yàlla Muhammad loolu ku ci def benn biteelum ndox kii fay mooy Seydina Muhammad kon su ngeen jóoree jóor bu toll nii ci am ndox fas yéene ku fi mar ngeen jox ko mu naan yàlla na leen borom guddi gi fay ci barke Muhammad mu ngi leen di sant di leen gërëm eh, yow li nga wax tënk na lépp man damay jooxe rek ngërëmal sëriñ bi ak ñaanam loolu moo tax ma jël kàddu en tant que coordinateur national ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di